bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokki jullit yi noo ngi dellu si di sant borom bi subhaanahu wa taala si jotaay bi ñu sumboon ci téere bu mag bi di thalathati al usul wa adillatuha li cheikh al islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala bi di ñaareelu jotaay gannaaw jotaay bi weesu ci ak njiital ak laytaayal li nga xam ne mooy téere bi ci xamle e, fànn bi nga xam ne ci lay wax di weetal borom bi subhanahu wa ta'ala ak ki ko bind ak téere bi moom mooy ban téere ci jotaayu tey bii ñu war a jël bind bu njëkk ci téere bi di wax li nga xam ne moom la boroom téere bi wax ba noppi buñ sa jógee daldi ci indi ak yaatal ci leeral masala yi ci aju ci waxi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko leeral ci seeni téere te ñu limoon ko ci jotaay bi paase cheikhul islaam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala dafa wax ni bismillahi arrahmani arrahim i'lam rahimaka allah annahu yajibu alayna taallumu arbaci masail alula alcilm wa huwa macrifatu llah wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diini alislaami biladilla athaniya alamalu bi athalitha addacwatu ilay arrabica alsabru cala alada fii waddalilu qawluhu tacaala bismillahi arrahmani arrahim walcasr inna alinsana lafi khasr illa alladina aamanuu wa camilu alsalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bilsabr qaala ash-Shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala law maa anzala allahu xujjatan calaa xalqihi illaa haadihi suurata lakafathum wa qaala al-Buxaariyu rahimahu llahu ta'aala baabun al-cilmu qabla al-qawli wal-camal waddaliilu qawluhu ta'aala faclam annahu laa ilaaha illa allah wastaghfir lidambik fabada'a bil-cilmi qabla al wa wal amal kon lii mooy bind bu njëkk ci téere bi ñu fas yéene ko faram-fàcce boroom téere bi rahimahullahu taala tàmbale téerem bi ci bismillahi arrahmani arrahim loole di tàmbale ci tur borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom mooy arrahman di yërëmaakoon di boroom yërmande ju yaatu ji waaye moom mi nga xam ne moom yàlla subhanahu wa taala mooy arrahim di yërëmaakoon yërmande ji nga xam ne daf ko jagleel ñi ko gëm képp ëllëg yowmal qiyaama comme ni mu ko waxee ci téereem bi wa kaana bil muminina rahima tàmbale bi nga xam ne nii tàmbalee na ko bismillah ci turu yàlla bu mag boobee ngir sàkku barke royee ko li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala di alquran karim moom la yàlla subhanahu wa taala tàmbale bismillahi arrahmani arrahim waaye royee ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme nam ko baaxoo woon ci ay bindam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i bataaxalam yum daan bindulu di ko yónnee ñam ko daan yónnee mu ngi ko doon tàmbalee ci bismillahi arrahmani arrahim waaye it jaar yoon wi nga xam ne mooy yoonu assalafu saalih di mag ñu baax ñi saa su ne noone lañu daan tàmbalee seeni jëf ak seeni bind seeni téere bismillahi arrahmani arrahim ay xadis ñëw na si ne bépp mbir moo xam ne tàmbale woo ko bismillah mbir moomee dafay ñàkk barke mbir moomee dafay dog si ak barke donte ne xadis ya sa ñëw wérut am na ay wax yi si am si waxi boroom xam-xam yi waaye comme niñ ko waxee tàmbale gi nga xam ne boroom xam-xam yi ñoo ngi koy tàmbale seeni téere ci bismillahi rahmaani rahim awalan ñoo ngi koy royee téere borom bi subhanahu wa taala waaye roye ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñooy asalafu saleh ba waxee bismillahi arrahmani arrahim mu teg si i'lam i'lam baat la boo xam ne dañ koy wax ngir kañuy waxal waajal boppam ci dégg liñ koy wax ak xam liñ koy bëgg a wax xam liñ koy bëgg a wax mu daal di xerawlu daldi déglu ndax lii borom téere bi di bëgg a wax fii dafa bokk ci ay principe ci diine ponk bu màgg la ci diine moo tax nga war a jiitalal wax jooje laytaay ngir la ngay wax ñu déglu ko mu ne i'lam xamal xamal baat bi ñu ko jële ci al xam-xam nag mooy nga xam mbir na nga ko war a xamee sa dëgg-dëgg na mu nekkee loole mooy xam-xam ki nga xam ne dafa yaakaar ne xam na mbir fekk nam koo xamee du dëgg-dëgg noonee la nekkee loole ak réer la loole la ñuy tuddee ak réer mooy safaanu xam-xam nga xam nga jàpp ne xam nga mbir fekk na nga ko xamee dëppoowul ak na mu amee ak na mu nekkee loole ak réer la xam-xam nag mooy nga xam mbir dëgg-dëgg na mu amee ak na mu nekkee loole mooy xam-xam mu ne kon xamal rahimaka allah yàlla la yàlla yërëm yow mi xam yow mi sàkku xam-xam yow mi muy waxal loole di ak ñaan gu boroom téere bi ñaanal ki nga xam ne moom lay waxal ki nga xam ne moom mooy jàng téere bi Eh, loole nekkoon kadalika yoonu mag ñu baax ñi ci seen eh, cofeel ak seen yërmande gu ñu am ci xeet wi ak ña ñuy waxal ak laaye biir gu mat sëkk moo tax ñuy ñu leen di ñaanal moo waraloon ñuy ñaanal ki ñuy jàngal di ñaanal ki ñuy waxal ngir yàlla subhanahu sa mbërtal lii nga xam ne mooy ak yërmandeem si kawam ndax yërmande googee si la eh, lii muy bëgg a wax di lalu di xam-xam bii nga xam ne moo lay wërsëgal jaamu borom bi subhanahu wa taala sa dëgg dëgg dëgg na ko war a jaamu ak wéetal ko si jaamu googee loole mooy li ëmb yërmande kon comme ni ko eh, Cheikh Saleh li Fawzaan al Fawzaan xafidahu llahu taala dafa xëy yërmande goo xam ne dafay ëmb kiy wax kiy jàngale ak kamuy muy waxal di ka muy jàngal moo waral borom téere bi wax ne rahimaka allah yal na la yàlla yërëm lan ngay xam mu ne annahu yajibu alayna taallumu arbaci masail xamal ne dafa war si ku nekk si ñun mu xam ñeenti masala yii masail masala yii nga xam ne dafa war kenn ku nekk ci ñi yàlla ñi yàlla togg jëf moo xam góor la wala jigéen la wareef nag buñ ko waxee mooy loo xam ne kenn du am ngant ci bàyyi ko maanaam ku ko bàyyi aw daan dafay tegu sa kaw mbugal dafay warlul sa kaw loole mooy wareef si diine lislaam ku ko bàyyi dangay am bàkkaar maanaam punition ak mbugal dafay warlul sa kaw loole mooy wareef def ko dafa war ku nekk euh, masale yi mu fi tudd ay wareef la ci jullit bu nekk góor walla jigéen moom nag euh, la tënk ci euh, ñeenti masala ñeenti masala yoo nga yooye nga xam ne Euh, moom la saar wi di suratul asr comme ni muy ñëwee ci kanam tënk comme ni ko Cheikh Salih waxee kon wax ji mu wax ne dafa war Cheikh Salih Fawzan dafa wax ni wareef fii kon da nga siy déggee ne du lu ñu sopp lii xam gi nga koy xam du lu ñu sopp waaye du loo xam ne mu baax la ku mu neex def déedéet wareef la waaye wujuban ayniyan wareef la si ku nekk yaa koy xamlul sa bopp yaa koy xam waaye yaay taxawee ci jëf ga ku nekk la war ndax lii di ak wareef dafa am ñaari façon si diine dafa am lu ñuy tuddee eh, alwaajibul nii li nga xam ne mooy lu war si kenn ku nekk mu defal ko boppam kenn du ko defal kenn lu mel ni julli juróom farata la ci góor ak jigéen mag ak ndaw loole wareef la yaa koy defal sa bopp kenn du jullil kenn eh, moo tax borom ne moo tax borom téere bi wax ni yajibu alayna waxul yajibu ala baadina dafa war ci kenn ku nekk ci ñun waxul ne dafa war ci ñenn ñi déedéet ci ku nekk la war loolu la tuddee al wujub al nii kon al li nga xam ne mooy wareef si ku nekk kenn du am ngànt si réere ko képp kuy jullit danga ko war xam lu si mel ni eh, ponki lislaam yi juróomi commencé ko si baati seede yi taxawal julli joxe azaka si ki ki mu war ki nga xam ne azaka war na si kawam war naa xam at tey azaka ak naka la koy génne woor weeru koor aji E, néegu yàlla bii di e, baytullah al haram ci ki nga xam ne aj war na ko war naa xam naka lay aje ba joxe farata soose kon loole ay wareef la yoo xam ne ku nekk la war ci diine kenn du ko defal sa moroom ñaareelu xaaj bi si wareef si diine li ñuy tuddee al wujubul yi mooy loo xam ne wareef la naan waaye si mbooleem umma bi la war bu ko ñenn ñi defee wareef boobu wàcc na ña sa des donte ne ñoom ñëpp bu ñu dëppoo bàyyi ko dañuy am bàkkaar ñoom ñëpp buñ ko bàyyi dañuy am bàkkaar comme lu génn lañu niral sànq si waree yi nga xam ne ku nekk la war la ko weesu si xam-xam comme li si mel ni attey njënd ak njaay si ki nga xam ne loolu concerné la kadalika attey jëflante yi ci diggante jullit ñi lu mel ni miraas lu mel ni ndénkaane ki ki faatu yu mel ni attey sëy ak yu mel noone nga xam ne mboolem umma bi war nañ koo xam waaye du ku nekk la war rek détail yépp ci atte yooye mu xam ko loole wujub kifaa'i la kon loole mooy ñaari wareef yi nga xam ne moom moo am ci diine fii nag wareef bii borom téere bi di wax fii ne yajibu alayna wujub ayni la maanaam wareefam ku nekk la war ku nekk la war boo demee si diine saa su ne xam-xam yi ñoo ngi wax ni xam-xam bi nga xam ne moom la wax fii ne i'lam rahimakallah xamal xam-xam boobee liñ ci jublu mooy xam-xamu diine xam-xamu diine Cheikh Saleh Fawzan Fawzan xafidahullahu taala dafay wax ni mboolem nusuus yi nga xam ne moom moo ñëw mboolem texte yi ñëw di tagg xam-xam ci diine ak di warlul xam-xam ci diine ak di wax ci xam-xam lañ sa jublu mooy xam-xamu sharia xam-xamu diine su mel ni la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wax al ulamaau warathatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo fi doon yenente yi ñooy ndono yeneente yi ci lan lañ leen doon ci xam-xam ak euh, guide nit ñi si jubal leen ci li nga xam ne mooy li yàlla subhanahu wa taala bëgg si ñoom ban xam-xam lañu doon xam-xamu sharia du xam-xami àdduna kon loolee lañ jublu si xam-xam fii i'lam rahimaka allah annahu yajibu alayna taallumu arba'i masail mu ne xamal yàlla na la yàlla yërëm dafa war ci kenn ku nekk ci ñun mu xam mu jàng ñeenti masala yii ba sa jiitu mooy ban mu ne al ula al ilmu wa huwa macrifatu llahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diini lislaami bil adilla la jiitu ci masala yu am solo yooyee mooy xam-xam comme niñ ko waxee léegi al ilm xam-xam mu daal di firi lan la jublu ci xam-xam foofee mu ne wa huwa maarifatullahi xam-xam boobee mooy xam borom bi subhaanahu wa mooy xam yàlla xam ki nga xam ne mooy yenenteen bi sallallahu alayhi wa xam lii nga xam ne moom mooy diine lislaam waaye nga teg ko ci ay tegtal xam-xam dafay tegu si ay tegtal loolu lañuy tuddee xam-xam amma ki nga xam ne dafay tëñëx tëñëxi la muy def teguwul si xam-xam ak toppe loolee du xam-xam comme ni ko boroom xam-xam yi waxee ne boroom mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo nañ muy consensus ne ki nga xam ne muqallid la al toppe kookee du boroom xam-xam ki nga xam ne dafa gis nit ñi di def mu def dafay toppandoo ci la muy def loolee du xam-xam kookee du boroom xam-xam waaye xam-xam mooy lan la ngay def tegu ci firnde tegu ci preuve moo tax fii mu ne xam-xam gi ngay xam masala yii nii xam gi ngay xam sa boroom subhanahu wa ta'ala xam gi ngay xam sa yenente sallallahu alayhi wa alihi xam gi ngay xam sa diine loolee lépp dafay tege si ay tegtal yu wóor ci téere borom bi subhanahu wa ay tegtal yu wóor ci njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñi lay wax ne dañoo xam borom bi subhanahu wa wala dañuy wooto woote xam yàlla te teguwul ci tegtal yi nga xam ne mooy téere borom bi subhanahu wa ci njàngalem yenente bi sallallahu waaye mi ngi tege ci njàngaleem cheytaane ndax li yàlla subhanahu wa digle rek cheytaane am na euh, aw yoon wu mu rëdd di sa woo nit ñi ñu naan la waaw ñun dañoo xam yàlla waaye naka la ñuy xamee yàlla subhanahu wa li borom téere mi wax fii mooy bil adilla yaa ngi xamee sa borom dina ñëw si kanam inchaa allahu taala waaye yamul si xam borom bi subhanahu wa xam sab yenente sallallahu alayhi wa sallam xam sa diine mbooleem la nga war a xam si diine yaa ngi koy teg ci ay adilla ci ay preuve ci ay tegtal yu wóor kon xam-xam ci ak tënk mooy xam li nga xam ne mooy njub waaye nga teg ko ci teg ko ci ay tegtal ci ay preuve xam-xam bi nga xam ne nag moom la tënk fii moom la faram fàcce si mbooleem téere bi mbooleem téere bi moom la moom la tënk fii première masala bii nii moom lay faram fàcce yépp ci téere bi ndax firi na lan mooy al ilmu mu ne mooy maarifatullahi eh, ñaareel ba di maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba di maarifatu diin al islam bil adilla ñett yi mooy ñetti cosaan yi lii mooy thalaasatul usul yi nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne moo war ci jullit bu nekk mu xam ko moom la faramfàcc si téere bi yépp kon tënkal nañu fii li nga xam ne mooy jubluwaay bi la sa jiitu ci ñeenti masala yi war si ku nekk mooy xam-xam xam-xam boobee mooy xam lan mooy xam sa boroom xam sa yenente xam li nga xam ne mooy sa diine xam-xam boobee tegu ci ay tegtal moo tax lépp luñ lay woo te lii jiituwu sa ñoo ngi lay nax bariw an na tey ay woote ak i kuréel yoo xam ne ñoo ngi dajale nit ñi di leen woo ci di jël seen temps ci lu bare bare bare bare bare bare la leen yitteel mooy majorité ak mbooloo te am na sa mbooloo ma ñoo xam ne tey masala yi am solo yii ci seen diine nekk lu njëkk war ci ñoom xamuñu ko kuréel googee ak mbooloo moomee taxuñu ci xamal leen ko te ku faatu ci ñoom lañ lay njëkk laaj mooy loolee comme nañ ko junjee woon ci jotaay bi paase liñ lay njëkk a laaj yow jullit bi boo faatoo ci sa bàmmeel comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi waxee mooy ñetti masala yi kon ngel la waay bu la kenn nax ngel la waay jëfandikool sa xel ngel la waay muusal lii nga xam ne xamoo kañ la ngay wuy ji sa borom subhanahu wa moom lañ lay njëkk a laaj mooy premier wareef bi nga war a njëkk a xam kon loole mooy masala bu njëkk bi arba'i masail yi ñaareel ba al amalu bi mu ne athaniyatu alamalu bi cheikh abdulaziz ibn baaz rahimahullahu taala nee na ay an taamala bi hada diin nga jëfee ko maanaam gannaaw xam-xam la say tegu automatiquement mooy jëfee xam-xam wasiila la maanaam euh, dañ si jaare ngir yegg si objectif objectifu xam-xam mooy jëfee xam-xam boobee xamuñu ngir rek xam wala xam ba noppi toog déedéet mu ne nga jëfee li nga xam ne mooy diine ji moo xam julli la walla woor la wala joxe azaka la wala aj ngëm yàlla ragal borom bi subhanahu wa nga jëfe mbooleem li nga xam ne mooy lislaam moo tax yàlla subhanahu wa bind la yàlla subhanahu wa daf la bind ngir nga jaamu ko kon jaamu joojee mooy nga taxawee ci ak jëf ci jaamu yàlla subhanahu wa moom kese bañ koo bokkaaleeg dara taxawal li nga xam ne moom mooy julli joxe li nga xam ne moom mooy azaka ci ku ko am mu am mat nisaab waaye woor weeru koor aj li nga xam ne mooy néegu borom bi subhanahu wa ci ko am amulu yoon mu war ci moom gëm borom bi subhanahu wa gëm ay malaakaam ak i yenenteem ak i téeréem gëm li nga xam ne mooy bisu pénc gëm li nga xam ne moom mooy dogal la sa neex ak la sa naqari di digle lu baax di tere lu bon lii yëpp ay jëf la lii yëpp ay jëf la moo xam jëfi xol la walla jëfi cër yiy feeñ loole lépp mooy ci tënk taxawee li nga xam ne mooy diine lislaam bàyyi jëf yu bon kadaalika si jëf yi la bokk bàyyi yi lañ la tere ci ay bàkkaar taxawee li nga xam ne mooy ay wareef kon al amalu bihi ba léegi comme ni ko Cheikh Salih al Fawzan rahimahullahu taala waxe mu ne ay bil ilm al amalu bihi ay bil ilm liannahu la yakfi an al insana yaalam wa yataallam bal la budda an yaamala bi ilmi mu ne nga jëfee xam-xam rek nit ki xam wala di jàng ne rek xam naa walla ne rek maa ngi jàng mu ne loolu doyul waaye faw nit ki di jëfee xam-xamam ndax nee na xam-xam boo xam ne dee su ko jëfee loolee lay la ci kaw nit ki xam-xam boobee lay la sa kaw ki xamul yeesaay mën naa mën naa am lay maanaam ngànt ne ah diw la muy def daa xamul waaye ki xam koo koy tegg na aw lay ci kawam koo koy amatul lay mu ne xam-xam du jëriñ mukk te teguwul ci ak jëf xam-xam bu ñu jëfewul du jëriñ boroom bal nee na daf koy lor ndax ñi yàlla subhanahu wa taala mere te muy yahudi ci loole la leen meree te mooy ñàkk jëfe seen xam-xam ñàkk jëfe seen xam-xam te nee na eh, comme ni ko xadis ba indee ne kañi njëkk bokk na sa ñañi njëkk mbugal ëllëg yowmal xiyaama dugal leen sawara bokk na sa ñoom ki xamoon te jafewul xam-xamam waykat ba wax ne wa aalimun bi ilmihi lam yamalan muadabun min qabli ubbaadil wathan boroom xam-xam bi nga xam ne jafewul xam-xamam ëllëg moom lañuy njëkk mbugal sax jaamukatu xërëm yi te loolee mu ngi si sukkandiku xadis abi hurayra xadis bu wér saxi muslim euh, awwal man tusaar bihim annaar naar alqiyaama ñi nga xam ne ñoom la njëkk dugal sawara ëllëg yowm alqiyaama bu lim si ñetti nit bokk na sa ñooñee nit koo xam ne yàlla subhaanahu wa joxoon na ko xam-xam daal di koy indi laaj ko waa xam-xam bii ma la joxoon loo sa defoon ana lan nga sa jëfoon waa ji wax anaa defoon naa si nangam ak nangam ak nangam borom bi subhaanahu wa taala ne ko kadabta waxoo dëgg dangay fen waaye danga jàngoon ngir ñu ne ah diw day ko am xam-xam la danga xamoon danga doon jàng ngir ñu ne ku bari xam-xam la waliyaadu billah mu ñu daal di koy jël yóbbu sawara kon xam-xam la sa jiitu gannaaw sellal ga def ko te yàlla subhanahu wa taala tax di sàkku xam-xam te yàlla subhanahu wa taala tax jëfee ko faw nga koy jëfe te dafa bokk ci jëfe ga ngay jëfee xam-xam mooy sellal ga sellal ga ngay sellal ci sàkku ko waaye sellal ga mu ga mu lay jural si jëf ya ngay jëf te xam-xam waral ko la nga xam mu leer si yow nga koy jëfee mu tegu ci kaw sellal loole mooy jëriñ boroomam kon loole mooy ñaareelu masala te muy lu am solo mooy ne nit ki la jiitu mooy mu xam ñaareel ba bu xamee mooy mu jëfee ñetteel ba althalithatu ad daawatu ilay ñetteel ba mooy mu woote jëmale ci loolee mu xam li ko yàlla subhanahu wa wërsëgal mu leer ci moom muy góor góorlu di ko jëfee ah la sa tegu mooy bu mu yam si yow na la jéggi wooteel jëmale si njub googee comme ni ko cheikh euh, al allaama samahatu cheikh ibn baaz rahimahullahu taala mu ne ay an tadcuwa ila hada diin mooy ngay woote jëmale si diine ji yàlla subhanahu wa taala xamal la diine ji ngay jëfee ngay woot jëmale si loolee ngay laaya biir nit ñi ngir ñu ñëw si njub googee yàlla subhanahu wa taala wërsëgal la jub si xoj nga leen si jubal di leen digal lu baax di leen tere lu bon ndax loole mooy woote jëmale si diine lislaam mu ne kon dafa war si jullit bu nekk muy woote di jëmale si borom bi subhanahu wa ku nekk mu ne selon kàttanam ak selon la mu xam la nga xam mu leer si yow ngay woote si loole waaye selon sa kàttan fa mu toll si jottali li nga xam ne mooy diine yàlla ji subhanahu wa taala qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba loolee la yàlla subhanahu wa taala ah, lii mooy sama xam ne si lay woote di si jëmale waaye woote bu tegu ci kaw xam-xam kon la jiitu comme ni ko borom téere waxee mooy xam-xam xam bu leere ba noppi nga koy jëfee faw ngay woote ci jëmale ci loolee waaye billati hiya ahsan comme ni ko euh, cheikh Muhammad Aman rahimahullahu taala waxee ci charabaat bi maanaam woote comme ni ko yàlla subhanahu wa taala billati hiya ahsan na mu gën a te woote wi gën a rafet ci woote yi mooy fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ci ak woote mën hajam mooy yoonu yonente bi sallallahu alayhi ci woote jëmale ci borom bi mooy yoon wi gën ci yoon wi képp kuy woote di jëmale ci yàlla subhanahu wa taala te jéemoo jaar ci yoon wa mu jaaroon yaa ngi ci njuumte wu rëy waaye liy dëgg tey dëgg mooy yoonam moom yonente bi sallallahu alayhi wa moo gën a jub si yoon yi si lépp bokk na si woote bor si jëmale si borom bi subhanahu wa te la mu jiitaloon si woote mooy woote wéetal borom bi subhanahu wa woote jëmale si weetal yàlla subhanahu wa taala si àqam bu mag bi mu am si ñun mooy wéetal ko jaamu ko moom kese bañ koo bokkaale dara a Cheikh Salih wax foofu ne ay laa yakfi an yataallama al insaan wa yamala fi nafsi wala yad'u ila allah kon ba léegi du doy nit ki xam ba noppi di jëfee xam-xamam te du woote di jëmale si borom bi subhanahu wa mu ne laa budda muy woote di jëriñ nit ñi gannaaw ba mu jëriñee boppam si xam-xam xam-xam bi nga xam ne yàlla subhanahu wa wërsëgal na ko ko faw muy woote di jëmale si xam-xam boobee ndax lii di xam-xam nee na ndénkaane la lu la yàlla subhanahu wa taala dénk la te yàlla dina la ko laaj waroo koo denc nit ki xamul ngir denc xam-xam boobee hmm? nit ñi soxla ko bu fekkoon ñeneen yi noonu lañu def kon du yegsi si yow waaye mbir mi e, continuité la maanaam boo xamee xam-xam boobee danga koy jottali wareef la beneen wareef la bu tegu sa kaw nee na comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee wa id axada allahu mithaqa alladina utu lkitaaba la tubayinunnahu linnaasi wala taktumuuna ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee si ali imran yàlla subhanahu wa taala moo jëloon li nga xam ne mooy mithaaq te muy accord ñi nga xam ne ñoom la yàlla joxoon téere te mooy xam-xam képp ku yàlla jox xam-xam yàlla fasante ak ñoom la tubayyinunnahu linnaas faw li yàlla jox leen di ngeen ko leeral nit ñi te bu leen ko nëbb wala taktumuuna la tubayyinunnahu linnaas laam boobee eh, dëgëral gi am ci wax joojee yàlla ne di ngeen ko leeralal nit ñi tegu leen ko nëbb wala di lu màgg kon nee na lii accord la bu yàlla subhanahu wa euh, fasante ak ñi nga xam ne ñoom la joxoon xam-xam kon faw mu am ak aaya ba ñu waxoon sànq ne euh, naam woote boobee ci kaw xam-xam lay tegu qul hadihi sabili ad'u ila allahi basira ana wa ittaba'an ana wa man ittaba'ani wa subhaanallahi wa ma ana min almushrikin te loolee mooy yoonu yenente bi sallallahu alayhi ak yoonu nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo ko royoon ci loolee jaar fa mu jaaroon jiital xam-xam teg ci ak jëfee waaye duñ sa yam dañ say woote di jëmale ci loolee ci ak tënk ñeenteel ba mu ne arrabiatu alsabru ala al ada fii ñàkk bal mooy li nga xam ne mooy cosaanu loolee lépp muñ gi nga xam ne moom ngay muñ ak lor buy jóge ci loole cheikh euh, abdul aziz ibn baad raximahu llahu taala nee ay yasbir ala al ada fi hadihi al ashyaa faw ya woon yëpp muñ gi faw mu am da muñ ak lor guy jóge ci yoonu sàkku xam-xam bi nga xam ne wareef la comme nuñ ko waxee woon ñaareel ba muñ ci jëfee ko faw muñ teew ngir nga jëfe sa xam-xam awalan ngir yegg ci xam-xam boobee faw muñ teew nga mën muñ lool ngir sàkku xam-xam bi nga xam ne wareef la ci yow xeesaana dina la ci jéem a fëq la ci jéem fëq àdduna waaye nga muñ ci yoonu xam-xam ñaareel ba jëfee gi nga ko bëgga jëfe jëfee faw dina metti lool muñ faw mu teew ñetteel ba woo gi nga ci bëgg a woote yamatoo ci xam ak jëfe waaye nit ñi nga bëgg leen woo ci loolee di dëgg ak njub joojee faw mu muñ bu rëy moo tax mu ne faqad yaxsul insaani ada faw lor dina dab nit ki si loolee faw mu sonn si woote muy woote ak leneen ak leneen ak leneen waaye faw mu muñ lor buy jóge si waa këram lor buy jóge si ñamu dëkkal lor buy jóge si waa dëkkam ak lor yu jóge fu nekk di dal ci kawam waaye la ko war mooy muñ ak sakku pay sa yàlla subhanahu ndax nee ki gëm yàlla faw mu muñ ki gëm yàlla faw muñ ngëm yàlla muñ moo koy téye comme ni ko ali ibn abi talib radiallahu taala anhu waxee woon mu ne manzilatu sabri min al iman ka manzilati rasi min al jasad mu ne muñ ni mu mel ci ngëm yàlla mi ngi mel ni rek bopp ni mu mel ci aw yaram ndax yaram boo sa jëlee bopp ba foofee dund desatu fa yaram wa dootul amati solo muñ noonee la mel ci ngëm yàlla ngëm yàlla goo xam ne muñ lalu ko boroomam mënta muñ foofee ngëm du fa toog faw nit ki muñ ci lay tabaxee loolee lépp ñu wax sànq nee na muñ googee ay façon la muñ li yàlla subhaanahu wa warlul sa kaw nga wa ko taxawee muñ li yàlla subhaanahu wa taala si yow nga wottu ko moytu ko faw muñ teew muñ si yoonu daawa googee muñ si jàngale muñ si digle lu baax ak tere lu bon muñ li nga xam ne moom mooy dogali yàlla yi subhaanahu sa kaw yàlla di wàcc sa kaw si ay nagtu ak musiba nga muñ ko te yàlla subhanahu wa taala tax loolee faw mu am en borom bi subhanahu wa taala wax na ne fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul mboolem yàlla subhanahu wa taala yónni woon ci kaw suuf di ay yenente ay lor yu mag moo àndoon ak seen woote ay lor yu rëy rëy rëy waaye ñu dékk woon ko ak muñ yàlla digaloon yenenteen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na muñ kon nanga muñ comme ulul azmi yi nañu daan muñee di yenente yu baax yooyee di ñi gën ci yenente yi di nuux ak ibrahim ak muusa ak isa moom yenente bi sallallahu alayhi bokk ci ñoom di ulul azm moo tax képp kuy ñëwit ci gannaawam faw nga roy ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dina ñëw si kanam la mu daj si waxi Cheikh Saalih al Fawzaan lu ne wax nañ ko ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu muñ ko kon yàlla subhaanahu wa taala nee na fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul mu waxaan ne wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ayunina waxaan wasbir wa ma sabruka illa billah innama yuwaffa as-saabiruna ajrahum bighayri xisaab wasbiru inna allaha ma'a as-saabiriin lii yëpp di ay aaya yoo xam ne dafay digal nit ki na muñ ndax muñ googee mënta ñàkk kon faw nga muñ ak lor si mbir moomee ndax nit ñi duñ la bàyyi yu mukk si nga leen di digal lu baax naan danga leen di tere lu bon faw nga musaadama maanaam faw nga tamponte ak euh, jàkkarloo ak seeni bëgg-bëgg yu wuuteeg loole seeni bànneexi bakkan yu wuuteeg loole ak lañu tàmmoon di def di ko dunde te mu wuuteeg dëgg wuuteeg ak njub yow nga ñëw nga ne leen ah kaay leen si lii faw dina metti faw dinañ la faw dinañ la wax lu ne waaye bu boobaa lan mooy sa wareef ak lan mooy sa royukaay kan mooy sa royukaay si loolee mu ne sa wareef mooy Cheikh Salih moom mooy wax mu ne sa wareef mooy muñ nga rayee ko ki nga xam ne mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ne maada laqiya min annaas ana lan la dajul si nit ñi ana lan la ko nit ñi defut fa kam laqiya min al ada bil qawli wal fi'l ay lor yu baree baree baree bare si wax ak i jëf wax nañ ne saaxir la kii njibarkat la nee na wax nañ ne kaddaab la kii fenkat la wax nañ ne majnuun kii dof la ak ay jëf lu ne jëf nañ ko fekk nañ ko sax muy julli fa mu sujuudee ñu jël mbàqu gëléem ak la mu ëmb ci ay déchets sànni ko ci kawam tuur ko ci kawam waliyaadu billah ba mu daanu fekk mu ngi sujud di julli sa kaaba ga dal koy mënaase ne dañ ko rey lu ne daj na ko ci yoon woowee moom ak i saxaabaam sa Uhud ñu damm bañam toj boppam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp di ay lor te muy kan muy ki yàlla subhanahu wa taala yónni yow mi nga xam ne danga ne dangay jaar ci yoonam yoonu xam-xam yoonu jëfee xam-xam boobee yoonu woote ci xam-xam boobee nga ne doo muñ mu ne yow yaay kan ba doo muñ wala yow yaay kan ba duñ la lor te ay yenente safwatu alxalq ñi yàlla subhanahu wa taala tànn ci mbindeef yi yónni leen ñu ñi gën ci xeet yi di ay yenente ay yenente rey nañ leen ci yoon woowee rey nañ leen ci yoon woowee ñeneen ñi façon lor bu ne lor nañ leen ko loolee njàngale la ci ñëw seen ginnaaw kon ñeenteel bii di muñ faw mënta ñàkk faw nit ki ñeenti mbir ñetti mbir ya ko jiitu yépp mu ñu koy téye kon niñ ko waxee woon sànq commencé ko si xam-xam ba jaare ko si jëfee xam-xam boobee ba wàcc si li nga xam ne moom mooy euh, woote jëmale si xam-xam boobee boroom téere bi ne wa dalilu qawluhu taala bismillahi arrahmani arrahim ba saar wi jeex wal asr a cheikh saalih waxoon na ko sànq mu ne ñeenti masala yi mu ngi ko tënkee ci saar wii loolee di dëggal lañu waxoon ne lépp lum lay wax moom danaan la tegtal baa ngi nii duut ci baaraam fii la ko yàlla subhanahu wa waxee ci alquran fii la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee nii la ko asalafu saalix déggee woon waxee woon kon lii mooy daawati cheikh Muhammad ibn Abdul Wahab comme niñ ko waxee woon si jotaay bee paase dellu leen ci ay téeréem jukki fa luy wane la ngeen di wax si di ko tuumaal kii de lii la wax ne leen ah ñeenti mbir yi daf ñoo war wàllu say tegtal mu ne ndax yàlla subhanahu wa taala nee wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina aamanu wa amilu salihat wa tawaasaw bilxaq wa tawaasaw bilsabr yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee ci saar wii di al asr gannaaw bismillahi arrahmani irrahim yàlla waat ci li nga xam ne moom mooy al asr wal asri waat ci li nga xam ne moom mooy jamono wala li nga xam ne moom mooy waxtu ñaar yépp lu dëggu la yàlla waat ne doomu aadama yi maanaam jins doomu aadama ndax dane innal insaana la fi xusrin mi ngi ci biir pertange foofee mbooleem nit ñi loolee la alifal jins di fi di fiiri laamul jins alifal laam mi nga xam ne jins lay tegtale mbooleem luy jins doomu aadama ñi ngi ci biir pertange te foofee dafa jëfandikoo ay adawaatu tawkiid comme ni ko euh, boroom xam-xamu maayni yi di waxee la sa jiitu mooy yàlla di waat borom bi subhanahu di wax te la mu wax rekk ay dëgg muy waat sa la muy wax di waat ne lii moom moo am ñaareel ba laamu in euh, xarfe inna inna bi firi tawkiid si euh, làmmiñu arab kadhalika la la fi xusrin la laam ba mu dugal ci xarf jar fii xusrin ne sa dëgg-dëgg mboolem nit ñi ñi ngi ci biir pertange mu doog a excepté daal di seppi ne ñii rekk ñoom ñoo mucc ñii rekk ñoom ñoo mucc yàlla subhanahu wa taala nee na illa alladina aamanu lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm borom bi subhanahu wa taala te waxoon nañ ne la jiitu ci ngëm mooy xam-xam xam ko moom yàlla subhanahu wa xam li nga xam ne moom la warlul ci yow si nga gëmee ko noonee loole faw xam sa xam-xam lay tegu waaye wa amilu salihat di ñaareel ba la wax ne wala al amalu bi athaniyatu al amalu bi yàlla ne teg sa ñuy jëf ay jëf yu sell wa tawaasaw bil xaqi ad daawatu ñëw ilayhi di woote ci loolee di jëmale ci dëgg di dénkante li nga xam ne moom mooy dëgg ak njub wa bi sabri ñeenteel ba ñëw dénkante li nga xam ne moom mooy muñ ñeenti ñii la yàlla subhaanahu seppi ci pertange gi mu waat ne mboolem nit ñi ñu ngi ci biir pertange yàlla subhanahu wa ne ñii rekk ñoom ñoo génn ci pertange googee kon ñeenti yi ngelawaay moom mooy li nga xam ne faw nit ki séqi ko muy ay jéego ngir génn ci pertange gu mag gi looloo tax mu teg ci waxu al imaamu shafii rahimahullahu taala di ju màgg ja ci saar wii qaala shaaficiyu raximahullahu tacaala law maa anzala allahu xujjatan calaa xalqihi illaa hadihi suurata la kafathum mu ne yàlla subhaanahu wa taala bu wàccewul woon ci xeet wi lu dul saar wii doy na leen sëkk maanaam doy na aw lay ndax yàlla leeral na fi ñi perte ak ñi pertul ëllëg yowmal qiyaama mën na leen a atte ci kaw loolee ana ñan ñoo dëggal ñeenti mbir yi ñooñee ñoo génn ci ak pertaange ëllëg yowmal qiyaam ñoom ñoo yeyoo teraanga ak borom bi subhaanahu wa taala ki aljana ana ñan ñoo dëggalul mbir yooyee ñooñee ñoo perte waliyaadu billah loolu tax mu wax lii borom téere bi indi ci waxu al imaamu shahi comme ni leen ko waxee woon sànq euh, loole rek mooy xam-xam indi ay tegtal ci téere borom bi subhanahu wa waaye yamul ci loolee mu indi la dégginu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon di asalafu saaleh moom di al imam muhammad abdul seen yoon rekk la jaar ndax kii di al imaamu shafii rahimahullahu taala kenn la ci borom xam yu mag ak njiiti diine yi bokk ci borom ngir yi ñeenti ngir yi moom mu bokk ci kenn ci ñoom mu ngi tudd muhammad ibn idris abu abdillah ashafii almuttalibi mu ngi juddu atum 150 ci gàddaay gi kon ci deuxième siècle la judd deuxième siècle ci ña ñaareeli e, téeméer ci gàddaay gi deuxième siècle mi ngi judd ci téeméer ak juróom fukk atum téeméer ak juróom fukk mi ngi faatu atum ñaari téeméer ak ñeent atom ñaari téeméer ak ñeent 204 la faatu 204 al imam muslim juddoo rahimahullahu taala kon ñooñee ñu jege saxaaba lañ lii moo doon seen déggin mu lay rabtu ak ñooñee waaye yamu fa mu teg si waxu al imam al buxaari al imam al buxaari mu ne wa al buxaari rahimahullahu taala baabun al ilmu qabla al qawli wal amal wa dalilu qawluhu taala faalam annahu laa ilaha illa huwa astaghfir li dambi même manhaj bi même yoon woowu noonu di yoonu xam-xam bu la ne ah lii la lii mooy tegtal ba kadalika al imaamu al buxaari di abu abdillah muhammad ibn ismail al buxaari mi nga xam ne moom mi ngi faatu 256 dund ci troisième siècle ba maanaam après siècle al imaamu Shafii mu teg ci al Buxaari ne la buntal na ci téeréem ba wax ni lii day ab buntu la ci lan lay wax al ilmu qabla al qawli wal amal ne xam-xam moo jiitu de xam-xam balaa jëf balaa wax balaa jëf la jiitu ci nit ki mooy xam-xam balaa ngay wax balaa ngay jëf diine jii di diine lislaam xam-xama sa jiitu yow jullit bi balaa ngay wax dara balaa ngay jëf dara wax joojee walla jëf joojee teg ko ci xam-xam bu wóor bu tegu ci firnde ndax alimaamul buxaari nee na loolee la say tegtal ndax nee na borom bi subhaanahu wa dafa wax ne faalam annahu laa ilaha illa huwa astaghfir li dambik fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal mu ne ndax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne xamal na amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala nga jéggalu say bàkkaar mu ne yàlla daal di tàmbalee ci li nga xam ne moom mooy xam-xam balaa wax balaa jëf yàlla tàmbalee ci xam-xam mu ne faalam balaa ngay wax balaa ngay jëf wax ji mooy lan wax ji ngay wax laa ilaha illa war ngaa xam baat boobee lan lay firi ak lan la wundu waaye jëf ja di wastaghfir li dambik jéggalu say bàkkaar loolee jëf la kon balaa wax balaa jëf lu ne ci xam-xam lay tegu kon li yëpp di dëggal ñeenti masala yi nga xam ne boroom téere bi jiital na ko ne mooy waree fi jiitu ci ku nekk ci ñun képp kuy jullit ñeenti masala yii war naa leer ci yow nañ war naa biir ci yow nga xam ko ci xamin bu wér waaye teg si nga jëfee ko kon lii moo doon bindu tey bi cheikh mohammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala jiital ko ci téere bi di ay masala yu ama ama am solo waaye comme niñ ko junje woon ci eh, masala bi ci jiitu di xam-xam ne ba mu waxee ne mooy xam mborom bi subhanahu wa taala xam ab yenenteem xam li nga xam ne mooy diine lislaam te xam-xam boobee yëpp tegu ci ay adilla ay tegtal ne mooy tënk nag mboolem li war a ñëw ci biir téere bi ndax téere bi mi ngi ko lal ci ñetti masala yi nga xam ne moom la tuddee mooy xam-xam te mooy xam yàlla xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam diine lislaam moo tax ñu tuddee ko thalathatul usul mbaa al usulu thalatha wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in